kon lii polémique bi wax ju ñaaw ju ne jóge ci xam naa waali amul dara lu ko neex yuusu it amul dara lu ko neex man dégguma waali dégguma yuusu sama liggéey laay def di porteur de voix bañ lu taal sama réew ma di leen wax ngeen delloosiwaat seen xel yi ñun ay wax rek lan nu fi tegee leer na nañ ci nopp ñi ko bëgg a dégg ñi nga xam ne bëgg nañoo comprendre te bëgguñu problème bëgguñoo yàq leer na ci seeni nopp lii tubaab yi ci boppam ñoo juum te ba ñu juumee yónnee nañ lettre jéggalu ki nga xamante ne moom lañ joxoñoon baaraamu tuuma kooku nag xam naa dina am lu ko metti ndax tamit juum dafa metti àddina ñëpp dawandoo dal ci sa kaw te defoo yëgoo tinoo dafa xaw a metti waaye nan bàyyi lépp ci loxo yàlla ndax waali man ni ma ko xamee ak xolam ni mu yaawee amut bu doon dëggantaan li ñuy wax nii tuuma gi dëgg la sax waali soxorut sàkkantumaak loo xam ne leer na ñëpp ñim mu bëgg a leer ci réew mi leer na ñëpp ni tubaab yi yoroloon programme bi ñoom ñoo juum man falaa ci yem continue déglu titi bi ndax xam nga lu tax sama xol souvent muy fees ñun ñëpp war na mën demalante te du ñaaw ndax réew mii dañ lay tuumaal loo xam ne soo dëgërul nekk gaynde rek mën nga faa jaare ne démissionné naa alors man jaraluma ko je fais mon boulot après la vie continue kon may ma titi bi parce que sama xol dafa fees je suis humide boole leen mu rattax ñenn ci nit ñi Sénégal ñu baax ñaa ngi fi mais ñenn ci nit ñi fexe leen lal ci laalo ak kànja lu ñaaw xajut ci réew mi ak yi ngeen di def xajut ci réew mi ndax ki ngeen koy defal muy Waly Ballago Seck xol bu rëy la am man xam naa ko ndeyam buy ñaan barki Seydunaa Muhammad danaan mbooleemu artiste yiw coon dund na ba dem kenn dégg ko ci dara kon góor góorlu leen yéen ñenn ci nit ci nit ñi ngeen rataxal bu ngeen mënatula wax seen akkulaayu taalaa bu leen def loo xam ne xajut ci diggante yi ñuy dem déglu titi bi ñëwaat ay ayca let's go ma ñëw ayca mi ngi noonu paasu màggal laay joxe san euros xaw ma nag fu ngeen koy wecceekoo leb leen paas dem ba tuubaa ci marché ba marché Ndiarème bi am na benn paa bu fa nekk mooy wecci tonton As mës naa ko faa ngi bu ngeen demee ba foofu ngeen wecceeku ko defe naa 60 000 la 100 euros bu ne xanaa ñoo ris barki Serigne Touba Mbacke 100 euros la ñuy maye paasu màggal man maa koy def man Amina. ay ca ñu tànn ay ca ñu tànn Malick jëlal gaaw benn ah. ok kon ñu mayegum benn dawalaat ba ci kanam waat ñaar mais il faut que ma xam ñaata personne d'accord. ok kon nantaan na Aïcha ñu ngi koy jox ki nga xamante ne nii mooy euh, bàcc borom toi et mois tonton bàcc maa ngi lay nuyu li ma sol kaw ba suuf nag lépp tonton bàcc la borom toi et mois boutique kontaan naa lool ci moom ci kanam tuuti xale yu chic bëgg chic dinaa leen jox numéro ki nga xam ne mooy euh, tonton bàcc ngeen dem fa seeti ko non juste dañ doon euh, wax pour mu gën a rafet parce que àddina amul benn solo tubaab yi juumuñ sax seen liggéey la ñu def ñoom ci mbir mi li nga xam ne moo xew ñuy joxoñ baaraamu tuuma kenn ci doom ci réew mi moom du ci dara kon tubaab yi ñoom ñoo jël seeni programme def seeni liggéey def la nga xamante ne moom la seeni këyit bind kon ngeen bàyyiwaat xel fii lu ñaaw sax war na fee mën a am ñu rafetal ko ba mu rafet ndax Sénégal ñoo ko moom te dara xaju fi dafa tuuti xoola guerre bee di tàkkee ci dëkku jàmbur yi yàlla nañu ci yàlla musal kon ñun doon war gën a sant yàlla te di gën a rafetal àddina dee leen rafetal lu metti nag nit lay dal te nit ki saa yu ko lu metti dalee na ko muñ te yàlla rek tax parce que yëpp suñu destin la ah. yàlla tuddoon na ne euh, stade bii njaga après dina ci jëlee lu ko metti stade bii waali après dina ci jëlee lu ko metti semaine yiy jàll Amina Poté dina ci am lu ko metti suñ borom mooy bind ku ne lii duma dal nag yaa ngi xeex ak suñu borom kon jël leen lépp ngeen bàyyi ko ak ki nga xam ne mooy c'est le meilleur juge du monde mooy jë mooy yàlla ay ca ñu dem jël ki nga xam ne mooy euh, madame Seck euh, Ndey Ndiaye Ndey Ndiaye am nga fi 100 euros madame Seck Ndey Ndiaye Amina Poté sa wax ji rafet na torop Sénégal dañ war di defar yàq macha allah sa jiin lan la ah, ca jiin bala ca jiin bala ay ca Ndey Ndiaye madame Seck du ma jàppaat tur de bind ko Cissé paasu màggalu kas rajab la ñuy joxe lii nag tey rek lay am xam naa buy amaat ay 10 000 lan leen di may mais màggal gi ci la ñuy jàpp 100 euros 100 euros bu ngeen demee ba Touba euh, wecceeg ku ci ñëw ba fii it bu la neexee mën nañ la jox CFA. ah cosaan nga koy jël see euh, Ndeye Ndiaye madame Seck ay ca mi ngi noonu kon ñu demaat dégluwaat titi laa lion ci maam Saliou bi euh, doog a continuer waat ci yeneen ay ca ñu dem. ku bëgg paasu màggal 100 euros kër yi rek laa bëgg ñu dem nag maye nañ benn 100 euros dañuy may benn 100 kii greffage. d'accord euh, dañooy maye benn li nga xam ne mooy benn euh, greffage ay ca maye neen 100 euros dañuy maye li nga xam ne mooy euh, benn greffage ah benn greffage kuñ ko ci may fii nii ngay ñëw pour jël si ko ñu dem ci Facebook live bi kii Mohamed Mohamed Lo góor la greffage la ni maye greffage greffage greffage ma xool macha allah Amina tu raison. wax leen yéen waxkat yi ndax réew mi bu ngeen waxul ñu bon ñi ci tànku yàq la ñu nekk Amina je t'aime trop moi aussi je t'aime I love you réew mi kenn mënu ko yàq ñi ko bëgg a yàq ñoom ñooy yàqu mais kenn du ko yàq barki Serigne Touba ndax ñaar ñi nga xam ne ñoom la coow li dal ci seen kaw liggéey rek la nu tal waali carrière am la tal dañ koo bëgg ñun waali dañ ko yónni yàqamti ko disque door la ñu koy laaj kon bu ngeen ko déggut ci wax jii déggu leen Youssou Ndour ci wax jii ngeen waroon a teey ci wax jii waaye nag ñenn ci sénégalais yi wax jii duñ ko bàyyi ba déwén ndax ay waxkat lañu waaye ñoom ñe ñoom ñi sekk mbir mi ak tubaab ba leeral ñoom taluñu lii liggéey lañu tal ay ca ñu daal di dem euh, jox ko ki nga xam ne mooy Mbayang Diop Amina man maa ngi nii Tëngéej boo ma nee ñëwal ma ñëw euh, paas non Mbayang mënuñu la may paas greffage la ñu lay may kii nag mooy Zozo kii mooy The Thiof mais yow Zozo dëggantaan kon na ci télé bi rek nga set mais yow bëggoo présenter nit ñi li nga sol nii mais dama bëgg nga taxaw fii bala maa mayee greffage bi ku tudd Mbayang ay ca Mbayang madame Diop may nañ la benn cheveux naturel mën nga ñëw fii xoola ni muy doxee non Mbayang madame Diop. Mm. Mm. nga ne ku sàcc plaisir yow. <laughs> comme nee nga ko tudd ci sa dënn bi sa fit dem moo tax ma yàgg ci waaw waaw yàgg nga ci de yàgg nga ci te yooyu wóorul nag yooyu wóorul de Amina. Ah! yow mais yow li nga set de li nga. say mais Amina ay euro la nii. li ngay xeeña ko dàq. euro yi de paasu Touba lañ ko fi mayee nii. xam nga yow laa doom dégg nga naan loo xamul kañ lay jeex. saa yoo ko rombee na neex. nay neex na neex. waaw nii la rek. waaye yow. mais toi aussi je te trouve belle. thank you élégante. thank you ba pare nag sa xol dafa rafet. dégg lu neex lu xam nga jigéen bu xolam rafetee rek. aljaanam leer na naññ. fexeel ba na dugg ci sa poos bul jaar fee kenn di ko récupérer. 100 euros c'est pour ci yi ma waxal. ay waay Samba. je continue ci baax des li baax li may wax mooy li may wax mooy da ngaa jàmm. yu baax yi. Amina. oyof nga car macha allah. E, dégg nga yii kii yi may wax ba pare bu la neexoon nag nga jël yëkkati sa bopp ci kaw de. parce que li def da nga koo mën. waaw dëgg neexul. waaye oyof ba mel ni suuf. ne soo. nangoo muñ. dama a jooy nag non non bul jooy xam nga dama lay seet parce que maa ngi yow tey. nit ki boo ko xamee 2013 ba léegi. mi ngi bëgg a yàgg. war ngaa mën a seede ci moom ay jikko. barke Serigne Touba mi ngi bëgg a yàgg. ku baax nga. yaa ma gën nag. xam nga lu am solo nag. Mhm. adduna bu ñu nekk nii. Mhm. kenn xamul kañ lay jeex. loo ci romb. nay neex nay wax ju neex sax yàlla ya yàlla la wax bu yegg. yàlla la neex du dëgg. kon jàmm rek Amina. jàmm rek ñu tu jàmm nga. yii ci jàmm lay dox. bokkul ak ñëpp ndey ak baay. maa bokk ak ñëpp yaay. ma ni bokkul ak ñëpp ndey ak baay. dégg nga li may wax. barke yore temps yi da ngaa poñi dëkk ak ñëpp ndey ak baay. man daal xoolal maa ngi bootu ci seen gannaaw yéen ñëpp. jeex na kon jeex na eh, mi ngi noonu Cheikhouna naa maa la ko may. barke Serigne Saliou Mbacke maa la ko may. waaw këy euro la denc ko bay tukki ba bu leen fàtte yéen ñi nga xam ne dañ leen di may 100 euro bu ngeen ñëwee fii bu ngeen ko bëggee def CFA mën nañ leen ko jox bu ngeen bëggee it ñu jox leen xaalis bi noonu ngeen dem fu leen neex wecceeku ko euh, Zozo seexu naa euh, Zozo di ku baax koo xamante ne macha allah li mu wax dëgg la 2013 ba tey mi ngi bëgg mi ngi bëgg a yàgg ah di nit ku yàlla baaxal ñun ñi nekk group Futurs Médias macha allah ñoom ñëpp a baax xale yi maa ngi leen di ah maa ngi leen di fóon kii nee na ma Amina euh, paas laa bëgg damaa bëgg dem Kastu Rajab Bintu Seen Bintu Seen may naa la 100 euros yow tamit jëlal. Bintu Sène xaama capturé ko pour numéro mag yëpp Amina macha allah sa wax ji rafet na lool macha allah faramaareen bi ñépp a ko bëgg xolam barki Serigne Touba bu ko yàlla fayee du sonn moom Waly Ballago barki li ko ndayem xolal nday ji rek bu ko yàlla fayee liggéeyu Kiné Diouf du sonn du torox réew mi ñépp a ko bëgg ay mi ngi noonu Amina lii dafa waroon a leer bu yàgg macha allah gën naa leer ci nopp nit ñi dem ba tey nag TikTok baa ngi wax mais gënati naa leer euh, yal na jàmm yàgg ah. kenn du roi du mbalax tonton Youssou moom patt bi rek la jënd jaay ko sénégalais yi. c'est normal ay Aïcha mi ngi noonu ñu continuer euh, dem euh, dégluwaat Youssou Ndour bu Serigne Mbacke Soxna Lo bi di ko may képp koo xamante ne taalibe Serigne Mbacke Soxna Lo nga rawatina nag fallu fallu yi barki Serigne Touba. taalibe Serigne Mbacke soxna loo yi laa koy may ñu déglu ko ñëwaat fii def émission bi ba mu neex te dara du yëngu ay ca ñu dem beneen 100 euh, euh, tànn ci jigéen ñi ba nuppi ah jigéen lay tànn ba pare moo kii moo moo leen ma man moo moo leen ma contrat laa fi am man moo moo leen ma jigéen lay tànn <laughs> barki Serigne Salim jigéen laay tànn eh man moo moo leen ma man man man contrat laa fi am man jigéen laay tànn barki Serigne Salim <laughs> ay ca ma tànn benn jigéen may ko 100 euros lu kër yi gën a bari man may def yii man yii lay def waa kër ndindi seen vidéo bu nuppee ngeen xam fi ma jëlee sama greffage nooy na xonq na rafet na je suis yàlla ay ca mi ngi noonu ma tànn benn jigéen non dama ko waat ba pare nag bàyyi leen ma tànn benn jigéen rek ayca <laughs> ma tànn benn jigéen may ko 100 euro na xol yi xonq euh, Kumba Sey encore bindal Kumba Sey xaama capturé ko pour ngeen am numéro am ayca Kumba Sey Amina Poté sa wax ji rafet na lool ay waay néew mi na noppi bala noo tàqale Youssou Ndour ak Wally Seck da ngeen koo mën da ngeen koo mën heureusement ba ñoom ñi nga xam ne ñoo seq yëf yi ku ci nekk am nga lu la leer nañu ci mbir mi kon ñi ci des garaawul ñoom ñi seq mbir mi ku ci nekk am nga lu la leer naññ kii xam ne ni tooñu ma kii it xam ne ne ñii tooñuñu ma kon loolu leer na ok kii nee na ma Kumba Sëy nee na ma Amina macha allah macha allah sa wax ji rafet na torop moom lañ may 100 euro bi waaw moom la waa ay ca ñu jàll ci keneen ñu dem déglu sëñ Modou bu sa jeng euh, sëñ sëñ Modou bu sa jeng bi may ko nag taalibe sëñ Fàllu yépp sëñ Modou sa Dieng bi macha allah bu rëkkee fii day toj na rëkk di ko jox Binta Mbaw taalibe sëñ Fallou la madame sëy yaayu Fallou yaayu Daali yaayu Pape mbay di ko jox nag ma sœur adorée Meta Balde Balde Pullo kenn xaaru la barke Serigne Touba Mbakke kenn sa yaay du ne cey Meta bu doon góor déedéet Balde Pullo yaa bëgg sa xarit mën sa xarit mën sa nit borom sato ceeri borom France di ko jox nag sëy naa borom Allemagne. borom Cologne di ko jox nag ki nga xam ne mooy Tamsir borom Zigane di ko jox nag ki nga xamante ne nii mooy Daouda ak jabaram ah tonton Daouda maa ngi leen di béggee ci sëñ Mbàkke moo euh, Modou bu sa jeng bi enjoy leen ko dañuy waaj a màggal yi te dañuy joxe paasu màggal rek faxasu yoxal di sëñ Fallu di dele faloo ko defar njabootam sax ma redémarreel ma demaat tànn waa Facebook live affaire bi moo daw mais mi ngi ñëwaat léegi léegi ñu ngi woon ci 2000 et quelques personnes je vous love barki Serigne Saliou bu dee bëgguma leen yàlla bu ma gisanteeg Seydouna Mohamed ki bàyyi léppam moo xam cofeel la am moo xam dalaa bëgg moo xam neexuloo ko sax mu taal connexion am di la xool kooku da nga koy ñaanal mu gën a yokk ndax mu lay gën di xool <laughs> ndax nga may gën di xool ay ca mi ngi noonu animation bi dafa war a tàng dafa war a tàng léegi dañuy dem nag ci ki nga xamante ne mooy Kanigé Papa Gueye xaar Gueye farama ca ndeer naaga naataango mi ci mbeylaan dimmi non ko soxna Ndiaye ngi lay nuyu barki Serigne ngi lay nuyu dem nag ci ki nga xamante ne mooy aram wañ galoo maa ngi lay nuyu naaru bel di nuyu Adja Dieng borom Italie sama yaay jooju nga xam ne barki Serigne Touba Mbacke yaayu tutu naar jéema Samba ak Yirim di nuyu Aline depuis Suisse ak Moustapha doomu ndeyam di nuyu nag sama seetkat boobu nga xam ne day wàññi coow ay sarax la lay génneel mbir mi sedd li ci des nga bàyyi kook yàlla ay da du kuré la ñu koy wax yaayu saay barke yonent bi aka mën a seet moom day gis mbir avant weer naan la ah coow a ngi ñëw ngay tënkam naan ko ah man ñu ma kenn na ñëw coow li ñëw mu ne la génneel nangam génneel nangam fayal coow li <laughs> mais bëgguma coow li di fay ndax coow li day tax même donte tooñoo ñu lay tudd dafa neex ndax day tax doo xew yi <laughs> fi ne akamaa bëggoon a jël place ñuy demoon estaat ñu gën ma mbamb dama bëgg ngeen may mbamb deen coow ay <laughs> ca ngi noonu euh, coow baax na ci artistes yi day tax duñu xew yi ay ca man bëgg naa loolu man xam nga nag damaa mënewul tooñ kon damay def lu garaaw suba ñu coow ma mais xam naa kon ñii dañuy arrêté sama contrat pulo laaj ma la laa bëggoon a def ah sa laa bëggoon laal paaka mburu <laughs> xam nga ñii lii ñuy def du coow paaka ci paaka ci faar vëb nga wàcc ñu ne lu xew dafa xëm ku ko laal ñu ne potee ko fi laal paaka léegi <laughs> looloy looloy guerre waaw mais yii du coow ay ca mi ngi noonu dañuy dem rek euh, nuyuwaat ki nga xamante ne nii mooy sama ustaas bi rek ustaas Pape Hann baax gën riis doomu ndeyu sa ustaas Modou Fall ay ca ñu dem euh, Binta Mbaw nee na ma laalaat ma ko sëñ Fallou bi yaa ngi yëngal Sénégal Marie Niass borom élégance euh, boutique maa ngi lay nuyu waaye ñu dem déglu greffage bi ki ma ko may kooku day barki sëriñ Touba Mbacke cheveux yi maye fii rek mësuma gis lu mel noonu ah da ci may sa jabar mais yow mayoon nañ la fi chauffeur pour ah non non non bàyyil ñu may ñeneen nag yow am nga jabar léegi bàyyil ñu may waa Facebook bi ba pare li ci des ma may ah yow da am jabar bas yow bas sa wax ju bari ji yëpp yaa ngi soxna ah d'accord xam naa muuma nga takk di ko waxaaleel paaram yow sa nit ñi ñëw nañ lii dootuma dal ci yow sa dernière invitation mi ngi yow sa contrat jeex na TFM ah ah ma baal la naa la jéggal ndax yàlla daf may baal d'accord ay ci ah da ngay acapella rek ñëw ñëwul <laughs> ñëwul ma xool eh jow randalal ma xaalis su télé yi bala ma koo maye kaay eh kaay kaay damaa gaaw ci yooyu waaw kay xaaral balaa gë balaa kii yee ñëw géwél bee ñëw ndax souvent géwél yi bu nuy ñëw dañuy laalaale biteel te bu boobaa doo ko tey yow sax wóoluwuma la xaama doo ko ci saag bi <laughs> saa yi daa bari te kenn compté wu ko fi acca acca géwél bi mën ngaa yegg si parce que xam làmmiñu géwél la neex wax leen xoolal soxna nday fàllu asu jëy kooku lay déggal ami lu gan na sax ku ma dàq yóbbu manguluj waaye yow Amina ki may bëgg a xoolal réew mi xam na ko éééy eh, eh, eh, nday fallu asu jeey xoolal éey kooku lay béggal ne ko nday fallu asu jeey fukki gaynde wër ab ragal du fa romb fi doon day maas Amina jox ma résultat ba yow ca naan ku sa reeru bàyyi doy doo tere xaraani bañ di la bëmbax waaye wax leen sa bub maam Cerno kenn du ko seppi xoolal sëriñ Fallou su ñëy wooye sa baay waaw mul ba kooku Modou Awa Balla la wooye a baayam Cheikh Awa Balla ak Faty Awa Balla kindi mul Balla soxna nday tey ma wajal la ba mu neex Sénégal yëngu xanaa xamoo labbali fas taxuta fasa raw fasa nga ca kanam ku la setu ca ginnaaw moo fay xala des yaa nga ca kanam xoolal kindi mul ba neexoo yéen Balak Maram Isaac Sadio Madiara Bousso Amina Lambi Lislaam Xadima ko salloo góor ñay sukk di raam juróomi sorool ñetti xutba seere sanga Tuuba soxna lay taxawal man lu e- ma lay wax. taxawal taxawal lu ma ko bëgg a wax wax na lu ma lay jaar. munuma munuma animé ba pare di la awu de. lan moo la indi say nit. ñu wor ma def ma jikko ju leen neex fay seen téléphone. lii bu mbu yii. lii bu bagage woon nga dégg-dégg tey. mais man duma lu mën a aw. ba pare li gën a def affaire bi dana neex bul mer parce que bu ma jugee ci tâche yi dina ñëw ci parce que. waaw jëx réew bee xewle ginnaaw suba. waaw luy loolu. maanaam beneen aar laale woon bu bokkut ak tâche bi. dama ana ana mu ban la ay ay maam dama ne dugal ci cello la. man bas bari bagage jëme wooyu sama bopp li may defa bari bu ma neexee léegi tëgg bool bu ma neexee taasu bu ma neexee taggat non mënoo ngànk bool boole ko woy moom benn rek ki ma dugg see tubarkalla macha allah sëñ Fallo si Dieye mi ko jur ndànk ne woo ci yebbi sëñ Modou aw balla mi ko jur sëñ Cheikh aw balla ak Faati aw balla waaw ñooñu aw balla la seen yaay tudd ku ma ñuul a ko jur barki yonant bi sëñ Fallo si Dieye mii may joobi bi ma dugg see may naa la ci bee aw balla aw balla ku ma ñuul maam ñenn warax mbóot maam jor na maamam ak Aminata Mbacké ak soxna Fatou Madu Bintu soxna Fatou yi sa Jóob mi leen jur moom lañ joxoon Mame Mor Sali moom fa Mame Cerno Aminata Mbacké Fatou Madu Bintu ñu jël soxna Aminata Mbacké jox ko sëñ Daam Abdourahmane Lo moom Mariama Lo Faati Lo Xari Lo Lo Aminata Lo ñu jël Aminata Lo jox ko sëñ Modou Moussa barke sëriñ soxna ma eh, lii xaaral xaaral xaaral ñu jël sëñ Cheikh Bambali soxna day fàllu ak sa jëy mi ci yar bi juddu jikko jom yaayu maam jaara esprit compétence expérience soxna day fal a sutu waaw waaw oro la oro oro yar woo ci mënuma maggi woo ci mënuma le plus grand monument de l'Afrique Amina xanaa xamoo baax dafay yàgg waaye sëñ Touba dafa ñëw gën dugalal xaalis bi ba nuppi bala ñu koo gis daa tuuti loolu tey lee xaalisu njaboot gi seetaan day fal a su jeey baax dafay yàgg waaye Serigne Touba dafa ñëw gën le plus grand monument de l'Afrique waaye loo tax da bëgg ma doon c'est le cœur de la ville Lamp Fall mooy borom tukki bu sori bi sëriñ te baax bi Cheikhul Khadim moo duma nasaraan si maami soxna day fàlloo si. damay dolli damay dolli damay dolli damay dolli le plus grand monument de l'Afrique soxna day na ko nee naa la juddoo ci mënuma juddu jikko jom daraja esprit compétence qualité personnalité waaye maam na sa maam. mbokk ndeyum Aminta Mbakke soxna Faatimatu Bintu ñu jël soxna Faatimatu Bintu jox sëñ ma ndumbe moom fa sëñ Moodu Xabbaan sëñ Fallu soxna Fallu Ndeye su jeey di woo ci mënuma yëre woo ci mënuma dama ni la lu jeeg ni naa ko def bu subaa yow nga def ko ci guddi gi la yaayu maam jaar sa laa ñu ñëw léegi nga teral ma nga xam lu baax jërëjëf surtout maam teral jëf yow daal duma la sax génne da ngay toog toogal nii rek mu déglu Youssou Ndour bi ndax dangaa tooyal ba pare dañuy lijjanti loo indi ci ndombo may ma Youssou bi balaa kii jeexal enveloppe bi ñu xool lu mu raxasoo sëñ Modou bu sa jëng bi rek sëñ Modou bi rek sëñ Modou bi rek sëñ Modou bi rek Mbacke Balla ay sa bu res ah ah ah, ah. xalo ko defar njabootam sax dañuy dem nag ci waa kër Ndindi Galas ñoom ñi nga xam ne bu affiche bi duggee léegi di ngeen xam cheveux yu baax yi fu mu am kon dañuy dem euh, Ndindi boutique ah affiche la mais Ndindi boutique ak waa kër Ndindi ak boutique gu Ndindi ak kër Ndindi ñoom ñëpp waa kër Sëñ Fallou lañ mi ngi nii Ndindi boutique euh, ñoom macha allah vente en ligne la ñuy def. Euh, seen numéro téléphone boo soxlaa ay cheveux da leen di woo ñu won la qualité ak model ak longueur bi nga bëgg ak euh, système façon greffage bi nga bëgg ñu jox la nga tànn bu la neex ñu livrer ko ba sa kër livraison gratuitement lay doon ay ca seen numéro téléphone mu ngi noonu bii ma takk ñoom ñoo ko may te ay cheveux yu raar ba pare original greffage amatul ci Sénégal yéen a ma gën a xam gis nga cheveux boo xam ne ñaq nga ba tooy te lëjul ci biir jigéen ñi ngeen xam ngeen lu baax sava buy jël jëli di tëltëli nii hmm? mi ngi noonu ndindi boutique ñoom waa ndindi boutique euh, merci beaucoup en tout cas ci man euh, greffage bi ngeen ma may kontaan naa ci lool léegi seen numéro téléphone yéen ñi bëgg ay euh, greffage original waa ndindi boutique seen numéro mi ngi disponible ci 33 641 17 non appel au 33 bi lan la ah, 641 17 bi ci gannaaw nag ok beneen bi numéro euh, en numéro France bi ok numéro France bi mi ngi noonu bi ci kaw mooy numéro France bi euh, euh, bi ci suuf ni ndindi boutique boutique ndindi bi ci suuf ndindi boutique numéro Sénégal mooy 77 823 79 30 ay ca kon euh, gaaw leen ngeen woote def passé seeni commande ay cheveux pur parce que man damay toog ku ci mel ni ñoom sala saw ñoom mun a sekk ñoom dañoo bëgg greffage bu pur ay cheveux pur bisu bisu silla ñoom mami kenn xale yi dañoo bëgg lu baax ba nga xam ne lu baax boo ko bëggee xam ko xàmmee ko da ngay seeti nag waa boutique euh, euh, ndindi boutique ah waa ndindi boutique nag ñooy def yi xolal fecc naa ba ñaq te lëjul ci biir gis nga mi ngi nii di tas ayca kon dem leen ngeen contacter waa euh, Ndindi boutique mën a am ci cheveux yu baax yooyu la ñu ñëw souhaiter happy birthday Alaaji Malick jox ma photo anniversaire bi mais li ma sol xale yaa ngi may bëgg a rey fi mu ne Amina jox ñu numéro tonton bàcc da ngay jékki-jékki tàggoo jël leen ayca Facebook live bu fekkee ne ñëw na ñu continuer waat joxe suñuy paas ayca numéro tonton bàcc toi et mois mi ngi nii li ma sol lépp dàll yi chemise bi jean bi lépp maa ngi ciy remercier tonton bàcc numéro am 77 692 11 33 692 11 33 moom nag yu chic lay jaay nee na ma poté santal waa Thiayin di ba tey numéro Thiayin Lady ku ko bëgg fiin say bagage génn seen numéro 75 la Thiayin di pour sa lex toj ah say rondeur génn nga rafet ba mel ni ku ñu jàppoon barki Serigne Touba.

ak ñi nga xam dañ am problème mu tension ak ñi seen i tànk di metti foofu daal palais du bio la tudd lépp luy xob lépp luy bio rek boo fa demee incha allah yaa xam ban genre wopp nga am ba ci épatite ñoom boo fa demee dinañ la jàppale bu baax a baax ci numéro yooyu ma leen jox pale du bio mooy Chain Lady 75 524 45 45 ñu bàyyiwaat bas mu jukk noppaliku nga. waaw tubaarkàlla bala bala maa jug nag naa maa ngi lay nuyu ba pare. waaw di nuyu sama yaay. waaw dem jaalu mi ci jaaji léegi may ma comme da ngay nuyoo ma dugalaat titi bi ñëwaat deux minutes mayewaat xaalis nga daal di ser ay ca jox ñu titi bi ñu dem gaaw ay ca na neex alaaji Malick ñu dem waxaat ci maam Saliou maam Saliou bi nag mën na maa rey ma koy may nag euh, ñi nga xamante ne ay taalibe Serigne saaliw lañ di ko may ñiy waaj màggal gi ak ñi nga xam ne dañ leen war a jox pass màggal ci Facebook live bi di ko may nag ta Adja Dieng taalibe Serigne bu mag la moom itamit foofu ca Italie Sardinia jox naa ko ñëpp di ko may nag sama docteur Aram Seck tukas rajab looloo ñu fi tax a taxaw tey ndax man nee naa leen événement bu am rek sama loxo nga ca <laughs> man lii laa gën a mën a def ngeen gis ay ca paas baa ngi nii ñu dem euh, tànn góor ñu may bëgg a rey tànnal góor tànnal góor d'accord ay ca ñu tànn góor waaw kay am nañ benn Mouhamed Dieng jenn Dieng Dieng yow kaay liir lii li Mouhamed lan la jàng nga Mouhamed Dieng Mouhamed am nañ benn Mouhamed jenn xaama capturé ko am nañ benn Mouhamed jenn Mouhamed Dieng cosaan ngay ñëw pour jël si sa 100 euros Mouhamed Dieng da ñëw cosaan pour jël si sa 100 euro bu la neexee noonu lañ la koy joxee bu la neexee nag ñu jox la CFA fii ci cosaan lay xewee beaucoup de cœur kër yi rek ak nii rek Ila Touba dañuy màggal yi ay murit lañu barke Serigne Saliou pare nan oto yaa ngi gaare raxas nan oto yi ba mu set. Sénégal ñun. Ah. raxas nan oto yi ba mu set. xam nga la ma bëgg njole taal. daa am feeling. waaw xaw nu la am bamba wóor xaw ma boo ma ko amee baa tey ba tey. am alal am sëñ Bamba koo gën ko amee ba tey ba tey namuñu daara <laughs> waaw tubarkal la waaw amin ñëwal léegi tiite dafa wax Serigne Saliou sa yaakaar barki yoonanti bi may ñëw ki ma mujj a dañu ma nuyul ma soxna Amina waaye su soobee duma ma yaat dara yow xam nga kan la kan ko wax oro yi dafa jeex léegi du du loolu daan ku la nuyu te ki la nuyu ci ragal moom mu ñëw ci garage soxna Wali Kébé mel ni ah kooku sama yaay la bi may ñëw vocalam yaa ngi nii ci sama téléphone moo ni ma nuyul ma Amina Poté barki Serigne Touba ko lu jeeg ni naa ko def 11h moom 10h la koy def moom xoolal da xoolal lu nit war a bëtal da koy def léegi tubaar kàlla ñu dégg ko Serigne Bas te sàggani wu ko dëgg la mu doon yaay faalu Serigne Bas barki yonent wàllu la yaayam tudd Serigne Sali way baayam Serigne Sali wala baayam tudd barki Serigne Touba Amina Serigne Sali soxna Fat Jaxate ko jur waaw soxna Fat Jaxate bokku ndayum soxna Mariama Jaxate ak soxna su Jaxate waaye nag Modou Asu Jaxate maama moom la jox soxna jëng si la libaas moom fa soxna su jaxate soxna faat jaxate soxna mariama jaxate sëñ bàkket jaxate eh, kii dama koy may dama koy may soxna seen yaay libaas jóor si la libaas fas si la libaas mata laa yokk naa sama loxo paate ndumbe jàng waaw waaw kuma daaru sëriñ saaliwu aayulu ba amada sure bàyyi ma nga meewnu njurul ki ni woon jox leen ma xale yi ma def sëriñ tubaa lam defoon ci xale yi koo koy Serigne Saliou 17 milliards la fi bàyyi dañ koy jooy ba léegi noppeeku <laughs> bàyyi Serigne Cheikh Saliou bàyyi soxna waalo maami soxna wali kebe sama waa ji may dimbali lu jéeg ni ko def da koy def mooy borom daara yi borom njurul borom jàpp ndal am satu na jang maamam la balla soxna jang maamam la Abdourahmane soxna jang maamam la Serigne Saliou borom doka bàyyi Serigne Cheikh bàyyi Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou may ñu titi bi Serigne Saliou may ñu titi bi na joole Alaaji Malick jërëjëfe Serigne Saliou barke Ahmadou Bamba Xaadimul Xadim dañuy dem Touba. dañuy dem waaw kay Youssou Ndour nag dëgmatil na dëgmalati tina ab bés bés ban la dëgmal Bercy hee ay waay waay waay Youssou mi Youssou bugut jàmm bugut jàmm <laughs> fi mu ne man li ma ci metti xoolal mi ngi nii le 22 2021 la le 10 juin wa le 18 juin wala le cent juin le cent Youssou Ndour accord arena bu France Bercy le 18 juin 2022 ay France amati ngeen problème ay Angleterre mas sa coono ay Amérique yërëm naa leen yooyu paasati di ñëwati ba France nara dajee teeg Youssou Ndour nara toroxalati seytaane mi ngi nii le 18 juin 2022 le grand bal ma nga ca kaw de Youssou Ndour et le super étoile plus invité Youssou nduur ak Super Étoile ak ñamuy invité barke Serigne Touba France nag jël leen mbir mi nag dégg ngeen foog na yéen a ko moom feesal saali ba kenn am fu mu toog France yéen jug leen tuuti Angleterre jug tuuti Amérique ñëw tuuti Canada ñëw tuuti ñun nag Sénégal ñu nit ñu jug tuuti gàmbi jug tuuti ndax ñoom ay sa manque dañuy dem ñoom na ba Njaay dañuy dem ren kenn duñu ko nettali te ren du kenn mi ko micro nekk ci mbedd mi wax damaa màgg noonu ko jox ñoom abaa xale yi ma seetaan ni ñëpp bersu <laughs> ren bii da ngay dem am nga passeport mbaa maa ko waxee fii de ah. am nga passeport waaw wala déet yàgg na naa ko boo yeggee mbaa di nga xool date wi waaw xam nga France bu fa duggee mu des ay mois duñ la may tubaarkalla passeport bu des at la nuy maye baax na am nga am naa passe passeport laa wax. maa la wax loolu yàgg na daas fanaanal loolu mooy daas fanaanal. kon pareel sa Bercy. le juin 2022 incha allah léegi léegi càmmiñal ah, léegi maa ngi woo soxna Fadi Sidi. ayca moom Serigne Sidi mu Cheikh Abdoulaye bari ki démb lan ko maye. kii laa bëgg. tubaarkàlla xëfër lan ko dénk Cheikh Massamba Sy Dieye mi jógee tax gi soxna Fadi Sidi doomu sëñ Sidi ji. Mhm. Cheikh Abdoulaye soxna Faati sama sama sama sëriñ bi soxna Faati madame madame Mbacke la waaw madame Mbacke mu ak ak rafet jëkkër nag xafoor lan ko jox maa gis xafoor ci vidéo xale yi ci TikTok soxna Asik soxna Mame Mariam moom xam nga ñoo bokk xam nga moom waaw soxna Faati Sidi di sëriñu Faatu Géwél juuf la waaw ba pare Faatu Géwél diwaat yaayam ba di bëgg ko lool ba di bëgg ko kon moom damaa bokk ak moom yaay soxna Faati Sidi kooku defal na ma lu ñu koy ñaayal ñaanal bal la yow macha allah yéen a ji rek yeeg doy na yàlla na sëy wi barkeel yàlla na sëñ xafoor di sa borom kër ngay soxnaam ci barke Seydina Mohamed réew mi ba nga fi nekkee ba tey soxna faat dafa fi dara lu ñaaw loolu am te xale yi ñëpp la bëgg nag ndax ñu ngi gis ci li nga xëy di gis ci li ngay dox léegi nag euh, danga am ay ay xaritu sëñ Fallou waaw gaal ma waat beneen cent euros soxna faat maam faati Mbàkke yaayu moom i daam buso waaye ñu waaye waaw moom lañ tuddee sama rak borom lam bu diis ba ci Italie nga xam ne teral la ma fu ne kooku nga wax waaw moo ma boole woon ak sëñ dam ba sëñ dam atta waaw nijaayama keroog ba ma jugee Dakar barkalla defee woon accident ca Amérique waaw tolof tolof di ma dal may jugo ka daan daf ma ne kaay ma yóbbu la ci ki ñu yaakaar muy sëñ daam att mu sëñ Ibra Mbàkke eh. ba ma jàppanteek sëñ dam ba tey waaw ah, bu laal dafa ah. ànd ak sëriñam bu laal déet ah. bu laal ah déggal loolu demal. léegi dama ne jëx réew bi bu màgg jubsee ñëppay dem Dakar kenn desu fi. barke Serigne Touba. kooku soxna aw busu la yaayam tudd soxna mati ñoo ko jur mhm. soxna mati ñang maam aafe ñoo ko jur maam aafe ñang soxna ko jur mhm. soxna mu kal som fat saxee ko jur fat saxee ab sa saara ko jur sa saar awa dikk kamara ko jur awa dikk kamara moo jur daanu ni ma ñang mu jur soxna sowala mu jur sëriñ busoo bi càmmiñul maam mati busoog maam xanaa xamoo sëriñ Fallu dafa bokk sëriñ Tuubaa baayam ndeysaan soxna jaara Bousso ak soxna Awa Bousso mi ko jur ndeysaan wàlliwu kër maam lay bawoo le plus grand monument de l'Afrique duñu gat ci alxuraan waaye bu demee doon yi di ñëw duñu daw maam yi soxna may baara ak soxna Fatima ak soxna Khoudia Baara ñooñu sëñ Alaaji Baara la seen baay tudd soxna Khady Gueye la seen yaay tudd macha allah dama ne nag sëriñ Fallou Jixri bi càmmiñal ma réema kunta yaay soxna benn sëriñ Mousso bi maamam jox nañ ko soxna Faati Balla ndeysaan moom fa sëriñ Cheikh Bousso sëriñ bu ma jooyloo doy na doy na sama yaram a ngi sampub sëriñ fàllu kenn du koo simpi <laughs> sampub sëriñ kenn du koo simpi waaye wax leen ndëmbal sëriñ fàllu kenn di koo képpi petit oro fan ba keñas borom belal bitik kenn demul ba ko Malick wal ma ndëri borom yoof <laughs> wal ma abdoulaat mirina ak dabakat ñooñu lay mege xoolal wax leen sampub sëriñ fàllu kenn du ko simbi waxal Amina mooy def di dindi sëñ Fallu courrier mu gindi xoolal balaak maaram Aïssa Sadio Mam Jaara Buso ku ni am nga sëriñ waaye xam nga ko jàq Fallu nga woo ma Fallu moo kanam loo ko sëlëm sëlëm du la yaakaari aji fat Mbàkke ña sama ay ca jërëjëf mi ngi noonu bala ñu ko bàyyi muy tàggatoo dañuy dem xool Papa Diouf waaye dañ war a duggaat ci Facebook live bi mayewaat beneen 100 euros ak nag profito euh, mayee greffage yi nga xam ne moom lañ fi dese benn 100 euros na leer kun koy jox góor ku ma neex d'accord jigéen ay <laughs> ayca ñu may ah baal ma jox ko góor ndax greffage yi ñu jox ko jigéen ayca mi ngi noonu ñu demaat ci Facebook live bi gisaguma mu xonq de na xonq na xonq ñu dem seetaan publicité Pape Diouf bi ndax moom itamit dana toroxal seytaane ca fa mu war a jëm ay ca ñu xool ko ñëwaat série bébé baas barke yonent bi demal ñi nga xamante ne tey jii nii mooy fan su Pape Diouf yi ak Kër Massar ak alentour bi yëpp parce que Kër Massar département la te am na ñeneen ñu ne ci ginnaaw ñu nga xamante ne ils ont vraiment envie de venir regarder le concert lan nga leen di wax pour ñu gën Euh, déployer ñoom tamit seen i moyens pour ñëw seetaan si concert bi et tout ça et côté sécurité bi aussi parce que kuy ñëw seetaan si concert bëgg na xam kaaraange yaram moom tamit nan lay demee. waa loolu moom dëgg la parce que boo xoolee euh, gendarmerie nationale rek presque am nañ fa cent cinquante éléments. wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñooy gros bras yi am nañ fa trente éléments xam nga franchement parce que fii dafa nekk site boo xamante nii site situ jàmm la quoi. ndax mais ku déployé moyens yu toll nii indi xel comme base indi TFM xam nga indi tey jii sono bi nga xamante ne xaay teg la wax dëgg yàlla tamit xam nga loolu dafa nekk loo xamante nii lu ñuy saluer la lu rafet la parce que tey population Kër Massar gi yëpp ñi ñuy xaar franchement parce que tey soo xoolee bi yi daanaka jeex na waaw maa ngi wax nag ñi nga xamante nii tey dañu bëgg a ñëw ci concert bi su fekkee ne gaawuñu ñëw jënd si waat billet xam naa ni fii gise fermé lay nekk parce que tamit dañuy bañ a violer loi quoi ndax mënoo indi par exemple foo xamante ni minimum dina jël mille personnes nga jaay ko si ay ticket xam nga bëgg a jaayaat day xaw a doy waar te loolu kaaraange gi gars yi duñ ko nangu ki nga xamante nii tamit moom mooy le président euh, le colonel tamit du ko nangu xam nga man maa ngi lancé un appel na waa Kër Massar yëpp gaaw génn ñëw jënd li des ci ticket yi parce que li ci des matul sax 500 ticket parce que suñu paree foofu dañ koy def guichet fermé franchement loolu lañ koy def quoi. waaw kon Amina ñoo ko déggandoo bu ngeen yéexee guichet fermé lay doon te tey ku raté lii mooy raté nga concert de l'année maintenant nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi man en tant que artiste Mamy Cruz donc maa ngi wax ñëpp dañu ñëw à partir de 17h kenn danañuy dem seeti keneen mu gën ñu développer si tey waaw PDG de DM Prod mu wax ñu nan la nan la lan la ñu wàcc si bés bi ak seen dégg naa ñu ne da ngeen di def tournée sénégalais. waaw bon maa ngi nuyu sénégalais yi di nuyu waa TFM ñëpp. di nuyu téléspectateurs yi. di nuyu waa Kër Massar en plus ci site bi fii ñu nekk nii di leen wax ni tey jour spécial la mhm. ndax li musul am Kër Massar c'est une première ñu déployer leen Helcom Bash en collaboration avec la TFM. ñu indil ñu sono bo ay teg son et lumière mooy am tey. pour une première son et lumière. et déjà tournée sénégalaise bi dañ koy démarrer fii Kër Massar aujourd'hui kon ça veut dire que ni tey Kër Massar dara du doy ku lu génn moom je pense du am photo waaw kon kon kon kon yéex tarde la. non yéex tardé yéex tardé yéex ñàkk. li mooy déclenché tournée sénégalaise bi tey mook tey mooy démarrage bi bu ñu pare après on va sur Kaolack waa Kaolack xaar leen ñu ñu ngi dem Tamba Saint-Louis Ziguinchor Sédhiou voilà. kon da ngeen di def tournée région yëpp quoi. fépp la ñuy def tour Sénégal la def incha allah. incha allahu rabbi mais loolu loolu déjà euh, c' quelque chose de très cool parce que am na si gox yi nga xamante ne dañuy bëgg di génn di seetaane ay concert dundal seen xol mais duñu ko mën parce que day sori si ñoom am na ñi nga xamante ne Dakar la ñuy mën a ñëw pour dundal seen xol donc ne serait-ce que pour ça jeunesse su dëkk yëpp ñu ngi leen di ñu waaw nañ nañu préparé. boo xoolee ni Kër Massar rek ñoom ñooy génn di baal si Dakar. Mhm. ñu du ñuy indi concept bi indi ko biir Kër Massar tegal leen fi affaire bi. yes sama grand ziar naa la. mais mami maa lay bëggee. yaa ngi si jàmm. waaye sant yàlla ci loo nekk. sama alhamdulilah tey ñu gis nga teel a ñëw. waaw waaw pour bés bi. waaw ñu lay ñu lay laaj en tant que artiste bu toll ni Pape Diouf war a ñëw Kër Massar tey live pour la première fois ici à Kër Massar ñu bëggoon xam tey lan la Pape Diouf nar biir Kër Massar. waaw am nañu mbégte ah. am nañ mbégte vraiment di nuyu waa TFM di nuyu mbokk Sénégal yëpp ak mbokk diaspora bi di leen wax ni tey Pape Diouf li fierté la ci moom mbégte la ci moom. ay ca mi ngi noonu euh, euh, Papa Diouf nag macha allah jéeri ngoone moo tëgg foofu ca Kër Massar euh, Pape Diouf nag fi mu ne nii dana toroxal seytaane foofu ca Kër saar kon préparé leen te waaj ko ñuy nuyu mami sama soppe boobu nga xam ne dama ko bëgg te sama xol mami maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. ay ca euh, dem nag ci ki nga xamante ne mooy anniversaire tey alaaji Malick jox ñu euh, euh, photo bi ci écran bi ñu daal di xool merci beaucoup tonton Bàcc borom toi et mois boutique waaye borom boutique ndindi ñi ngi lay remercier bu baax a baax a baax kenn du yéen ay ñu dem anamu déedéet anniversaire bi anniversaire bi anama ndindi boutique numéro téléphone am encore dem leen parce que ay cheveux naturels pur ay cheveux yoo xam ne cheveux dëggantaan la xam nga bu ñu ne cheveux naturel am na cheveux yoo xam ne ci bopp la jógee ah moom lañ naan cheveux naturel pur ene noonu la defe naa en ah, petit nu nuy waxee cheveux pur cheveux pur mooy cheveux aîné cheveux bakkan ah yéen xanaa jàngu leen ah cheveux aîné tubaab bi génnewu ko ah kon maa ko génne <laughs> nooy tooñ ay eh, ayca waa Ndindi boutique dem leen fa numéro téléphone bi 77 la 823 79 30 ñoom cheveux yaa ngi nii nooy na ba pare macha allah original merci beaucoup Amélia borom Amel Beauté noo ko bëggee Amélia yàlla sa jàmm yàgg moom danaan la ma makk yee la noo ko bëggee. xale yaa nga fa ñoom Sinthia ñoom Aji ñoom Musu xale yépp nga fa ñu ngi leen di wax merci encore ba cheveux bi ñëwee ñoo ko defar ba mu baax makki ma ba ma mel ne jàmm waaye kenn du ki nga xam ne moo tax samay reetaan neex xale yi ñëpp a ngi may laaj numéro dentiste docteur bi dentiste bi ñëpp a ngi ma koy laaj jël leen su ma ko joxee tey du ma ko joxewaat aram docteur aram daaw de sec noonu la tudd dentiste bi su ma reeyee dafay neex <laughs> xaar leen ma ree dëggantaan pour ngeen gis sama bëñ yi bëgguma reetaan ree reew foo mais dama bëgg a ree dëgg ngeen gis sama bëñ yi docteur Aram Daouda Seck da lay jàpp defaral la ay facettes yu amul fenn xale yi daggatuñ bi avion dem Turquie di jël ay hôtel wala dem fenn ci fii ngeen di yem ci docteur bi Aram Daouda Seck sama reetaan lan la <laughs> ay ayca numéro ma ngi nii numéro docteur bi jël ko 77 la 401 41 27 ah di nuyu Akim euh, docteur Akim maa ngi lay nuyu Aram Daouda Seck numéro am 77 la 401 41 27 original facette la du ay poudre wala loo ciy jonju lii facette la. mooy bi nga xam ne moom la ñëpp di dem di defi ji ca Dubaï wala Turquie wala France wala whatever ca euh, Amérique mais fii am na fi Sénégal te macha allah garantie xam nga ki la ki nga dëkkal bu lay faj. lu la wopp rek da nga koy seeti kon dem leen seeti docteur Aram Daouda Seck ñu daal di dem nag ci sama yaay jooju nga xam ni mooy reen ah euh, euh, chéri Bernard Guiro yaayu Isa ñu dem ci anniversaire bi nag nga bàkkal ma reen ma ñëw ci anniversaire bi euh, joyeux anniversaire ki nu mu tudd Guèye RFM happy birthday loo dund doyul ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yaram yàlla bàyyi la ci sa ci sa place te saxal la fa Guèye RFM dundal ba doyal Guèye moom coof la di ayca ñu jox ma ko ayca ñu dem ci euh, madame euh, euh, Guèye Guèye Seck Déco ah madame sekk maa ngi lay nuyu séeri Mousse sekk nopp jëkkëram yem ci moom ah, madame Guèye xale bi nopp jëkkëram yem ci moom maa ngi lay nuyu séeri Mousse gay neena na ma bul ne Guèye Guèye la gay moolum géej kon nag dund leen ba doyal xale yi nee naa leen ñoom dañuy jaay ay lalak ak armoire waaye boo ñëwee nu la neex fayee kon dem leen fa nga seeti leen bas jugal taxaw ma yónni la. waaw waaw waaw. li ma la jox nii dinaa la ci waxloo tey ba nga daanu. foo ma yónni man foo fu ma jëm ci Bernard Guiraud. waaw reen. waaw borom Bordeaux yaayu Isa loo wax reen doyul. yàkkamti ngeen. te bëgg xam xoolal ku xamul damay laaj. reen tibbal ee te yàkkale. sa yaay da daan dina le tibbal. te yàkkale sa yaay da daan dina reen xoolal tey ma way la ba mu neex Sénégal yëngu. waa jox ko njël reen jox ko rëkki njël lal ba muy reen ku man sa ndaya tax dara sa ndaya tax ey ku dara sa ndaya tax amina eh. ku ci bëgganteeg waayam ngir di ci commentaire waa ji doful dina jàpp ko reen la bëgg reen nee du moo koy aimé waaw waaw waa ji nee am moo koy aimé Bernard nee ay bëggante mu yéen ay nobbantee la bala ñoo bàyyi bas nag uh, mu tàggatoo uh, mhm. di nuyu ñëpp nag bàyyiwuñu kenn rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma habillé waa Toi et moi di uh, nuyu tamit waa Zigen di nuyu Seydina di nuyu ñoom ñoom di nuyu ñoom Tambédou di nuyu Tamsir borom Zigen Tamsir ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu tonton Daouda di nuyu euh, bàyyiwuñu kenn Almanya ah. ñoom ñëpp ñi ngi leen di jaajëfal ñoom tonton Ousmane kamara ambassade Sénégal bi nekk ak euh, Allemagne maa ngi leen di jaajëfal ñoom euh, monsieur Silla yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn bas dañu lay bàyyi nag nga daal di tàggatoo. balaa ñoom ñu koy. waaw léegi ki ma ubbee rek lay tàggatool. acca muy soxna Ndey Fallou Assou Dieye yaayu may leen ko mu tàggatoo mhm. tubaarkalla sëriñ Fallou Assou Dieye ko jur sëñ Modou aw Balla Cheikh aw Balla ak Fati aw Balla mu doon ku baax ci réew macha allah ma jël émission bi def affiche ni dama ko duppe tubaarkalla macha allah mu ko nag di ko baax waaye maa ngi nuyu sama yaay jëm jàllami ci jàjji maa sama ndee defal ak Fat Kese ñoom aw mbaay ku lim da ngay jum sama mag yi may leen ko waax waaye tubaarkalla di wax happy birthday to you taayiratu doomi sëriñ Moussa Mbacke mu sëñ Modou Boussa Dieng moom Serigne fal loo dund doyul waaye Amina nga doon. yow rek uy ma Mbacke Mbacke léegi nga doon Mbacke Mbacke. ñoom rek laa xam. ñoom rek ngay wax. man lii may def nii laa doon sama baay Matar Samb. dama lay invité waat samedi ndax li nga bëgg. Ah. sama waa ji. kan la. soxna Bali Muntaxa. waaw sama yaay ji. Serigne Soye bu la baayam tudd. bu coow li bëree du moom Serigne Soye bu tubaarkalla Serigne Bamba ko jur. waaye bokk waaye bokkum nag macha allah tubaarkalla maam Mariam Gaye mu baax mi kabbal la Yaasin maam soxna Bali. ci réew mi la dëkk du judd jéeri juddoo ni mu juddoo màgge ni mu màgge borom fondation bi nee naa ko tur yi yow rek ko ko am soxna baali sooy bu soxna baali mun taxaa soxna baali fondation soxna baali mam jaar billaay waxal nga ko léegi tur yooyu moo ko am sama yaay ju lu jeeg ni naa ko def bu subaa moom ci guddi gi la koy def ku ma fàtte nag dama laa fàtte xadi baara salon maa ngi koy nuyu di sama mag di sama xarit xadi baara joor la man Touba dañ maa bëgg ma seen fay Pam Ndiaye commerçant Serigne la yàlla teralee Couture Mbuub futur mu ay chaîne la gars yi dañ maa bëgg. lu taasukat di am am nga ko te reewoo bewoo. Ah, waa déggal loolu waa yow it nga baax gën dama ni wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógale cosaanoo. bilaay dëgg xanaa xamoo heure bu nit ñi xëyee di wax lu nu xamul boo xëyee di jëf lu nu mënul yow. baa dëgg neexul. Amina heure bu nit ñi xëyee di wax lu nu xamul. boo xëyee da ngay jëf lu nu mënul te xanaa xamoo nit ki bu jëfee ba raw la doo mën a wax ba dab ko ayca mi ngi noonu émission bi lii la woon ñu àndoon ci xale bi nga xam ne mooy bas bëri bagage di xale boo xam ne nag suñ borom teral na ko ci zahir ba pare mm. teral ko ci baatin ndax nag kilifa yi dañu koy déglu ndax ci biir néegu kilifa yi rek lay taataanee kon bas bëri mm. bagage mi ngi nii numéro téléphone am lañ leen di jox 76 481 481 86 86 86. 86 50 50. sama gargote bi waaw ma ne la bëri baax di ko ma la naan loo fay li ñuy naan nu mu tudd. soppu la <laughs> nga ne li nga fay jaay te ñu koy naan gargote bagaas taalibu sëñ Modou Ablaye a euh, jox li nga xam ne mooy euh, ñaari greffage rek. ak benn góor jox ko benn 100 euros ndax ñoo leen ko digoon ay ca kii mi ngi tudd euh, Kalidou Sall Kalidou Sall am nga fi 100000 francs xaaral ma capturé ko gaaw Kalidou Sall am nga fi 100000 francs sa paasu màggalu Kazu Rajab 100 euros astafurlah Kalidou 100 euros <laughs> mu leer danoo juumoon rek. dañuy bañ nga fëgg ñu Kalidou am nga fi 100 euro ay ca ñu mayee greffage kii nag ñi ngi koy jox greffage bi ñu koy wax Mina caam madame Fall Mina Thiam madam Fall am nga fi euh, cheveux xamuñ nag nu mu toll il faut nga ñëw ba fii parce que du xam longueur yi ndax heure bi daf ma njatt euh, ñu demaat ci kii nga xam ne mooy madame Diouf Amina barki Serigne Saliou Mbacké say noon rek laa yërëm moo tax may naa la ci cheveux madame Diouf xaaral ma capturer ko di ko mayaat ki nga xamante ne ni mooy euh, Kumba dem na de dafa gaaw affaire yi dem na de dem na de ay ca di ko jox na ki nga xam ne mooy euh, euh, euh, ndogay seen ndogay seen yow tamit mën nga ñëw fii ci cosaan am nga fi greffage yéen ñëpp dinañ leen woo léegi samedi bee passé am na ku ñu joxoon greffage am ba tey ñëwagul jël si ko ñëpp jël nañ ba mu des moom yéen ñu ñu lim mu ngeen ñëwee fii ci cosaan ñu jox leen ñii seen 100 euro ñii seen i greffage pour ngeen mën a waajal altine màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëñ fàllu googu nga xam ne rate ko wóorul ay ca sénégalais di leen waxaat ñu àndandoo bëggante booloo jàppoo tey wax lu wër ak lu leer loolu dina gën a defar euh, Sénégal nee naa leen góorlu leen bu baax a baax ngeen uti liggéey mbala ngeen di liggéey ndax dina gën a jàppale àddina bi moom moomi sekk ayca moom moomi moomi ko sekk sama jigéen boobu laay nuyu mbokk ndeyam waali sekk yaayam bëri ki démb la ma jox 7 mètres jasinaire jaaga jikkoom la waali lu nit ñi naa ko bu subaa bu xëyee ci guddi gi la koy way moom répété ko yàlla nag bu la falee munoo follee sunu borom moo fi teg waale moo ko fal man de bari bagage. daa dafa man Yacine may sa bii dafa leer alxuraanu karim ay ca mi ngi noonu dañuy tàggatoog yéen li nga xamante ne mooy euh, titi bi di ñaanal sénégalais yëpp jàmm am leen jàmm tey dox ci jàmm pour jàmm mën leen a sonal à très bientôt incha allah ci yeneen i émission yu gën a dëgër euh, émission bii ñu taxaw di leen bégal bientôt ngeen gis ñu ci leneen lu gën a dëgër ay ñu tàggatoog titi bi alaaji malik merci beaucoup merci beaucoup euh, toog mi takkoon micro bi merci beaucoup Petit Ndoy moo gaa sûr merci beaucoup karim aba sama caméraman ñaaw waaye équipe bi yëpp ku lim juum ndax bees ñu ma xamul tet yu bees yu ma gis te xaw ma seen tur a xam naa dama leen di nuyoo ay 10 euros rek yéen amina ak ak ah, ak Cissé sama murit boobu nga xam ne macha allah ku ne ko Cissé maa la mag mu ne la waaye maa la gën a bëgg Serigne Touba sama soxna si gën a faasam bi dama ko ko léegi laa la koy jox kon euh, jox ñu titi bi te nga yokk ko bégal xolu ñi nekk ci Facebook live ak ñu toogoon ci seeni kër ñu def lu baax rek réew mi mën a baax les yaayu maam jaara gën